sécurité totale constatée sur la corniche ouest, allant du niveau de la mosquée de la Divinité au rond-point du président de la République. Depuis quelques jours, l'endroit est plongé dans le noir. Selon l'adjointe au maire de Wakam, il s'agit d'un programme d'électrification des quartiers initié par la commune, sauf que celui-ci n'a pas encore atteint la mosquée de la divinité. Euh, il y a un programme de relamping qui est en train d'évoluer dans le village et dans les, les quartiers environnants. Donc, euh, mais euh, en train de, de, de, de c'est en train de se de se passer. Mais en attendant, cette obscurité suscite l'inquiétude des riverains qui disent s'exposer à l'insécurité. waaw li ñu waa wax mooy sécurité bi rek pour gars yi xam nga gën a bàyyi xel bu baax sécurité bi fii tamit ba si fii tafes bi sax dafa war a mën a am ay làmp fii yëpp dafa war a mën a am parce que fii yëpp gars yi ay dëkkuwaay la fii yëpp gars yi ñu ngi ko def ay dëkkuwaay yaa ngi gis géej bàyyi nii gars yi guddi bi dañuy dem nappi dañuy teer si tamit waaw. D'autres usagers, notamment ceux qui pratiquent le sport, interpellent aussi les autorités locales. guddi gi ba 23 heures quoi ci laay ñëw ko waaw leen na trop surtout ñi entraîné leen arrangé ndax lu mu leen lu mu leen lemee quoi waa mairie bi ah waa mairie bi ci taxaw ci affaire yi quoi waa jóg ci affaire yi quoi vraiment Pour l'adjointe au maire, la commune a déjà pris des dispositions allant dans ce sens. Et euh, la commune a quand même une équipe qui fait des rondes épaulé par des gens, des plagistes et des gens qui fréquentent la plage de Wakam. Et souvent, on a eu à interpeller des agresseurs. Et la commune n'est pas, n'est pas en reste dans cette campagne euh, de sensibilisation. La mairie affirme que ses responsabilités se limitent au niveau de la mosquée de la divinité. Pour ce qui est de la corniche ouest, c'est la responsabilité de la ville de Dakar qui est engagée. L'adjointe au maire rassure qu'un changement est attendu dans les prochains jours.